ndañe bi ma doon amal tey dama doon peese sama bopp rek maanaam def démonstration de force démonstration de force bi aussi dara ump leen ci ndax yéen ngelaw sax bu yëngoo xam yéen ko macha allah dew ma fenn jël ay kaar di fay ay nit fenn waaw xam ngeen ni ñii ñëpp ci dëkk bi lañ dëkk ñi xamante nañ bu baax daw ma fenn jéggaani benn militant walla benn militante bu ma defee démonstration de force bi ba pare li ko ñaareel mooy def sama bilan bi nga xamee ne waa Mbàkke doyloo nañ ma ba taxawal ma ca péncum ndaw réew ma li nga xam ne moom laa fi indi fii ci biir Mbàkke euh, beneen bi ci topp mooy leeral sama diggante ak waa parti démocratique sénégalais bi nga xam ne ñoom laa nekkoon di liggéeyal ba may jeeg bu ndaw ba léegi ma nekk di opposé ba ñëw assemblée defe ne noppaloo moo ci des xeex bi gën a tar ma dékku ko nag rek ndax Mbàkke jaral na ma ko euh, bi ci des ma ñëw ci li nga xam ne moom la ñu dëgmal muy local yi nga xam ne moo waral coow li ma leeral ne dem naa ak coalition Benno Bokk Yaakaar ci coalition parti démocratique sénégalais ma dem àndeek euh, coalition Benno Bokk Yaakaar. ma àndal tey ci dëkk bi mooy xale bu am yar bu ami teggin bi directeur Gallo Ba ndax ragal piété day xañe wërsëg. ah moom moo moom moo nangu sama mérite parce que élu du peuple nag du du lu ndaw de nekk fa vice présidente organisation de femmes yi ne Mbàkke ma téye ko jiite leen. bu ma ci nekkul président nekk ci coordinatrice départementale ba na gox yi maa nekk régional maa nekk départemental mu nangu li yàlla dogal xam ne ndeyam laa xam ne jàmbaar laa ci dëkk bi jàmbaar laa ci partie bi ma nekkoon ñoom dañoo yab gal waaye Macky sàll sax soxla na ma te mënuma woon am bon galo tey bu nangoo ab dogal wàcce boppam xam ne yaayam laa ci catégorie d'âge ñu ñëwati ci ndombay tànk yi ma yàlla jox mu wàcceel boppam ndax li ma koy jur jur ak li muy doon xale kilifa la cadre la xam ngeen ko cadre la de haut niveau de haut niveau mu wàcce boppam ñëw tendre ma laame ne ma yaay dama bëgg ñu ànd liggéey mbàkke ndax gis naa ba may xale tout tànk di jàng ba léegi nga nekk ci politique bi te mu soo en arrière te nawlaa la ndax am nga fulla am nga fayda am nga fit loolu moom moom laay doxe moom fit moom foo ko takk ci man passé na ko ah, PDS dina sama yoon nekkul ci seen élection municipale niñ ma def rek laa leen def man ku ma cof ma wadd élection locale yi dinañ ci dem mais ci ban bañe parce que man nee naa la may coordinatrice bu commune Mbàkke bii ñefe ko ba am ko nag dignement ak nu mu mën a demee ñoom war nañ ma consulter quand man ku ma tegut fenn faalewu ma la waaw ku ma cof ma war ma ne ay kuréelu UJTL war ngeen koo wax UJTL man bi may def sama campagne UJTL bi àndut ñoo man te teewut yàlla yóbbu na ma assemblée man jigéen ñee ma fal man mag ñi ño ma fal xanaa da ngeen fàtte présidentielle yi jàll ano de croix anu Mamadou Lamine Diallo anu Pape Diop bu bokk gis-gis anu euh, ke Malick Gakou nu ñu def te Ablaye Wade dafa taxaw ne lii ngeen di def ñu wàcc ko fa dem ànd ak Idrissa Seck bi ñu paree dellusi nañ ci parti te même au niveau de l' assemblée poste responsabilité ñoom lañ ko joxaat neexalee leen ko bong bong bu baax mag du fee ci yàlla naa dee di. Ah? tàggoo am. bu baax. leer waxaal kon ci ay conditions nga ànd moom. bu rafet. condition lañ ànd ak moom. Euh, moom benn ba ko yaakaar la nekk man ma nekk PDS. ñu ànd nag coalition. boole suñu doole lu ñu am jël. njiitu PDS na koy pour lan ma di ko ko yëgal muy ñëw ci dëkk bi di tànn hmm. daf maa yëgal. ni mu amee kilifteef noonu laa amee kilifteef fii ci commune bi yëgaluma bon du ko yëgal tous waaw je suis libre d'aller où je veux et quand je veux local lañ wax élection locale ah loolu c'est leur problème déggooy nga ne Macky Sall loolu c'est problème ñoom la engagé man daal biñ ma defee lu ma naqari man sama parti taxaw naa seet fa ma neex fa dal sama xel mu ñëw tàllal ma loxo ma ànd ak moom leneen lijjantiwu ma ko